waaleykum wa rahmatullah waa kay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp yépp xam ngeen ni saa bu ngeen ñu gisee ñu def vidéo ñaare ci luy defar ci luy jariñe ci luy wane liggéeyu seexul xaddim képp ci lañu nekk dañu wax nag ni koo duma ko topp fa ngeen jëm dafa soriwul te yi wax yi bari lool te wax yépp di kàddu yoo xam ni séentuwuñu woon ko ci fi mu jóge di kàddu yoo xam ni defarul dara di kàddu yu tooñ ndax gis ngeen bu yàggul def naa fi ay vidéo lépp jëm ci luy boole mag ñi def naa fi ay waxtaan jëme ci sëriñ Tuuba ak Seydil Xaaji Malik jëme ci Cheikhul Xadim ak Alxaaji Abdoulaye Ñas lépp jëm ci luy boole kër yépp ñu nekk penn di wax lu rafet di ko yéenante waaye nag saabu jamono ji jotee rek ñu songu gàmmu ñu dégg ay kàddu yoo xam dañuy bett lool tey jóge ci ay mbokk di jëm ci yoon wi di ko attaqué te tooñ baaxul bokk na ci kàddu yooyu sunu mbokk mu ñuy wax sañ Habib si moom lañ njëkk a dégg ay kàddoom mu bett ñu lool ci moom ndax dafa wax ni géej gi ku ci def karaama jën yi ñooy sa nawle kuy naaw tam ci jaww ji picc yeey sa nawle jooju wax séentuuñu woon ko ci moom ndax am na wax yoo xam boo ko waxee ñëpp am xel ñëpp ci réew mi lañu dëkk te boroomi xel lañu di xalaat day am fa xool yépp ak xel ya jëm boroom na am mu am yooyu yépp dégg nañ sa wax waaye nag nu bëgg laa xamal ni réew mii ñu bokk di senegal képp ku ci woote jàmm ñu fekk si la ci képp ku ci wax lu rafet nu fekk la ci waaye képp koo xam ne tamit nee na duut baaraam ci yoon wii nga xam ne ci lañu yàlla boole ñu fas yéene cee dee di ko ñaan sunu boroom gëm ko lool mu yoonu sëñ Tuuba ak koo mën a doon dinañ la tontu moom daal ku toog ci pénc mi wax lu waxuwul danañ ko dindi teg fee ak koo mën a doon mu wax nag wax yooyu sànniñu ko ñu bëgg koo tontu nag ci xam-xam dama yaakaar ni boo nee ku def ci géej gi karaama jën yi ñooy sa nawle kon dugal nga ci yenant yàlla Muusa alayhi salaam ndax moom yenantu bi yàlla la te yàllaa ko jox mission te moom mooy yenant bi yàlla ëpp lu mu tudd ci alquran tudd na ko 136 fois moom tamit mooy yenant bi nga xam ni moo daan nekk interlocuteur bi waxanteeg yàlla directement moo ne moom day def na karaama ci géej gi keroog bi ko na dàqee ak contingent njabootam ni ko ñu ngi ñuy dab defal pexe innaa la mudrakoo dani déedéet kallaa inna ma'i rabbi sayahdiini déedéet yàlla ànd naag man dina ma dimbali yàlla defal ko miracle yebal jibril alayhi salaam mu ni ko alqi asaakal baxra sa yat wi na ko dóor ci géej gi mu xar bi mu ko dóoree fan falaxat fa kaana kullu firqin ka tawdin azimin géej gi daal di xar mu jaar ci jàll firawna lab ak mbooloom loolu yaakaar naa ni miracle la te defe naa ni Moussa alayhi salaam bokk na ci óolul azmi juróomi yenant yi ëpp ay maratib kon da ngay mujj di saboote ak di bëgg a tuutil ku yàlla réyal ba da ngay wax njuumte loo xam ne doo ko seet kon ku def karaama ci géej gi jën yee sa nawle kon boole nga ci yenant yàlla Moussa xanaa te yàlla fonk ko lool mën ta ñàkk ci lañ daan toppe ab yenantu yenant bu deful mu'jiza kenn du ko topp te yenant yi nitu yàlla yi ñoo leen fi wuutu al ulama warasatul anbiya yi bu fekkee yow mënoo def miracle wala amoo ku mën a def miracle bul saboote miracle jàmbur waxal ak say taalibe ci li la ñor te bàyyi ñeneen ñi ca la ñu gëm ndax ñun boo waxee lool xam nañ ni sëñ Tuubaa ngay waxal ndax sëriñ bee def miracle ci géej gi ci nitu yàlla yépp te bind na ko fa man yulqinii fil bahri rawman li gurbati fali min ilaahi rawdu fi kulli aylami sëñ Tuubaa ci def miracle dañ ko ci sànni woon mu julil ci yàlla miracle boobu nag moom sëñ Tuubaa mi ko def jàppewu ko miracle wax na ko mag ñi mu yar nee leen jàppewu ma ko miracle dama ko jàppe rek ni jaam bu yàlla digal mu wàcc ndigalu yàlla mënuma tere def ndigalal yàlla topp sama bakkan ak topp sama dund du tax ma fawe ndigalal yàlla ak ci fum ma mën a fekk loolu di li siggil islaam ma jàppoon ne danga ko war a pookarewoo tiitaroo ko wax nañ fonk julli ngir li ci sëñ bi def ndax yow sëñ Tuubaa maam la ci yow waaye séentuñu woon ci yow wax ju tuuti jooj nga wax ko nga wax tam ni képp ku def miraakal ci kaw jaww ji euh, picc yee sa nawle xanaa kon da ngay xeeb miracle yanant bi alayhi salaatu wasalaam mi tax yàlla sàkk lépp te yàlla jële ko makkatal mukarrama ci génn guddi yóbbu ko baytil maqdis door ko yóbbu mu dem rañaan te sóoratul naj mi indi ko jàngale ko yanant bi dafa xotti dile asamaaw naaw am na wax yoo xam ni bëgg a saboote bu mu leen ci dugal kenn mënta fexe ba nii nu jàppe sëriñ Tuuba ñu wàññi ci lu toll ni dara sëriñ bi la nu doxale suñ digganteeg yarantu bi suñ digganteeg yàlla te doy nañu sëkk te amul lu ko mindeef mën a waxal ci digganteem ak yàlla amul lu ko mindeef mën a waxal waxal ci digganteem ak yanantu bi lu dul lu leer nañ ñi sunna su yaatu su set wicc téere yu bari yu jàngale fu funuuni xam-xam yépp mag ñu baax jeex tàkk ci yàlla mu yar ñépp defar leen diine ju set wicc barke bu dootul fay àdduna bépp di ko joobe waaye ku bëggul baak nun bàyyil ak nun ñi bëgg waaye sabotage xajul ci kër yi kon sa wax jooju sëñ Habib metti nañu lool te duñ ko denc ci suuf dañ la koy wax nga koy dégg ku fi waxati lu waxuwul ñu tontu la koo mën a doon ndax ñun sëriñ Tuubaa lañu yaakaar àdduna ak te amut ñaar moom képp lañu gëm loolu mu leer la naañ ci sa bopp sa wax jooju ma ñëw ci yeneen mbokk